Khadim Ndiaye chef service départemental ñeel wàllub commerce si pikin di doomu Touba di cadre fekk baax si partie bii di alliance pour la république booba léegi nag mi ngi jóg di yëkkati kàddoom di wax si jàngoro ji di coronavirus indi si ay sensibilisation yu am solo si bépp fànn vidéo bi nag ñuy seetaan bokk na si yi nga xamante ni moom lay faral di amal saa su nekk suñu déggee cas si biir réew mi rawatina gox bii di Touba ak li ko wër mi ngi kàddu wax si cas communautaire yi jàpp dafa war a nekk xeex boo xamante ni dañ koy yaatal ku nekk nag def ko sa xeex di moytu topp geste barrière yi jàpp na ni feebar bi lu mën a dem la te bu fekkente ne ku nekk yaa ngi déglu digle yi sa nam waree dina dem si lu mu gën a gaaw a gaaw soññi naw ñu nekk si marché yi ñu nekk si biir kër yi ñu nekk si mbedd yi également mbooleem barab yu ñuy amale rassemblement ñu teewlu déclaration bu Xaadim Njaay bokk si yi nga xamante ni moom lay amal si jamono jii di jamonoy mbas mi yéen waa Mbàkke ak Tuubaa ñu bu baax a baax a baax jël si ci waxtaan bi nga xam ne daanañ ko faral di def di waxtaanu sensibilisation ngir yee suñu sunu mbokk taalibe suñu askan ci seet nu ñu gën a mën def ba xeex jàngoro jooju ñuy wax coronavirus ci biir département Mbacké waaye tey nag bala ñu cee ñëw ci biir waxtaan bi dinaa yàlla dafa dogal tey la bis bi njëkk ci weeru koor ñu profité ci ñaanal jullit yi ci àdduna bépp waaye jullit ci Sénégal ak jullit yi dëkkee foofu Touba ak Mbacké kooru jàmm di ñaan yàlla suñu borom bi dara tawut mu defal ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ko ci alhamdulilahi la alamina ma ñu kàttan bañ man koo def ci ni mu ko bëggee te nangu ñu jaamu yàlla nga xam ne am nañ ko cee def ci barke xasida Sëriñ Tuubaa yooyu nga xam ne di def na ko yenn ñi pour gàttandu weeru koor yi yenn ñi pour dalal ko yenn ñi pour gunge ko muy yaa xayru def yaa mukrimu def ak yaa zal yi te ñaan sëñ Muntaxa Basiir xalifa général des mourides mu yàgg fi te wér ba naal bi nga xam ne yi yéene ji mu am ci liggéey Sëriñ Tuubaa te tàmbali ko ci naal yoo xam ne nii naal yu mu ci ayib la suñu borom may ko ba mu mottali ko ci jàmm te ñu ànd ko ak moom ginnaaw bi loolu wéyee ñu del si waat rek ci kàddu yu gàtt ci situation covid 19 bi nga xam ne moo moo am ci département Mbacké loolu nag tey dama bëggoon ñu jël ko ci beneen angle mooy angle conséquence yi nga xam ne tawat ji mën na ko indi surtout euh, nemmeeku bi nemmeeku fan yi cas communautaire yu bëri yi nga xam ne ñu koy tàmbalee bëri donc lan la mën a jur ci fànn ci wàllu prise en charge lan la mën a jur ci wàllu économique lu mën a jur ci wàllu social ak ci fànn yu bëri ndax ku ne gis na ne centre de santé bu daal mën naan fees na ba ñu ubbi nañ beneen day xalaataat sax ubbi beneen pour. mbir mi bañ a bette nga xam ne su boobaa cas lu am rek danañ xam ni ñu ko mën a gérer kon loolu mooy cas communautaire ñu ngi tàmbalee jéggi dayoo ndax booy lim ba bay waaj yegg ñaar loolu ku ne xam ne ni mi ngi bëgg a jéggi dayoo te cas communautaire li tax mu doy waar mooy dafa naqaree gérer ndax benn cas communautaire bu nekk mën nga caa lim ay ci mën ngaa compter lim bu bëree bëree bëri ay cas contact kon seen prise en charge dana compliqué. fañ leen di denc mën naa ñu bu yàggee dana compliqué ci autorité donc ci gàttal cas communautaire compliqué gi muy compliqué mooy nombre bi nombre de patients yi nga xam ne mën na koo jur mën naa bëri lool mën naa yegg sax ci personnel de santé bi débordé te suñ débordé lu ne mën naa xew te loolu ku nekk bugg ko maanaam loolu kenn bugg ko te kenn ñaanu yàlla mu am ba tax na ñu war cee gën a góorgóorlu ci gestes barrières yi nga xam ne nii moom lañu digal la port de masque doonte gis nañu ne fan yi ñu ñaa koy respecté waaye des na ndax liñ ci bëgg rek mooy ñu def ko loo xam ne lu ordinaire la war doon loxo ni ne ñun ñoo koy defal suñu bopp te kenn dañu ko waaye boo jëlee sa masque gàlloo ko dem bay tiim policier takk mel ni kooku moo tax te dañ ko war a def de sorte que pour aar suñu bopp aar suñu askan li may faral di wax nit kenn waru ko gën a bëgg boppam beneen bi tamit mooy rassemblement yi te suñu mu taxaa fàttali ko bëgg dem bi muy um, waxtaan li jëm ci taalibe yi danañ ko defee ci façon boo xam ne danañ moytu rassemblement yi ak interdiction de voyager euh, ci dëkk ak dëkk loolu nag fa yi liñ ci seetlu doy waar la ndax ñu teeral ne la toogal nga nga bañ di dem bay jël tawat bi di ko yóbbu ci yeneen dëkk loolu jaaduwul heureusement que l'état sera ferme comme ni ko président de la république waxee képp kuñ ci Euh, yoon dana def liggéeyam te ñu ngi rafetlu taxawaay bi nga xam ne délégué marché yi am nañ ko ci loolu di naqarlu wax dëgg yàlla bu yenn comportement yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci biir dëkk bi te euh, li dalal xel yi bu baax sax mooy comme ni ko préfet waxee danañ renforcer dispositif bi de contrôle au niveau des activités surtout ci yoon yi nga xam ne nii euh, yoonu clandestinité la kon nag ñu ñëpp nañ ko jàppee noonu kon ci gàttal ndax loolu soo ko seetloo moo di ne mesures yi nga xam ne jël nañ ko laal na ñëpp ndax laal na commerçant bi nga xam ne chiffre d'affaires gis na ne wàññeeku na laal na transporteur bi nga xam ne xam na ne chiffre d'affaires moom tamit bénéfice wàññeeku na laal na aussi yi yeneen façon commerce yi nga xam ne ñu ngi koy am may jaaykatu cere yi ñuy jaay yéen di jaaykatu dibi yi jaaykatu sandwich yi ñeneen ak ñeneen ñëpp laal na leen kon ñoom liñ ci seetlu rek mooy lañ mënoon mënatuñ ko ndax seen activité wàññeeku na ginnaaw nag activité yi wàññeeku na te kaay yi ñu ngi yokk benn solution rek lañ gis te moom rek moo am moo di ne nañu def li ñu sant bàyyi li ñu tere cas communautaire yi jóge Touba tawat ju ñu dellu suñu yitte defuñu ko état dana obligé renforcer mesures yi su boobaa dana gën a métti ci doomu aadama yi te loolu yaakaar naa ne kenn bugg ko marché volontaire benn solution rek moo ci am te ñu moytu nag li nga xam ne nii bëgguñu koo gis mooy fan yi tëj nañ marché yépp di ko def désinf di ko désinfecté pour l'intérêt de tout le monde nañu moytu nag di créer ay marché flottant ci quartier yi ndax loolu lañ doon bañ te marché yi ku moytu danañu dal ci ci bërëbu jaay yoo xam jaayukaay yi nga xam ne nit ñi mën nañ koo créer ci seeni koñ loolu dara jëru ko donc am na luñ ci dégg waaye ñu ngi ci gën a ñaax euh, les autorités ñu bàyyi xel ci façon commerce boobu nga xam ne dañ koy def pour pour euh, mën a contourner yi nga xam ne def nañ ko ci commerce yi au niveau des différents marchés kon nag fi mujjee rek mooy bëgg nañoo dellu ci suñu yitte bëgg nañoo dellu ci suñu commerce bëgg nañoo dellu ci suñu transport bëgg nañoo tamit ah am loo xam ne danañ ci gën a mën a suturloo gën cee mën a jàppale suñu famille ak suñuy bopp ak suñu bopp benn solution rek la def lu ñu digal bàyyi li ñu tere leneen amul suñ ko defee mu mu am jariñ ci ñun suñ ko def bu gën a metti ci ñun ndax kat duñ nangu kenn muy sacrifier la santé publique te l'État sera ferme dans ses décisions te su boobaa dana metti ci ñëpp kon nag à bon entendeur salut un homme averti en vaut deux jë jërëjëf. ñoo ko déggandoo mu doon kàddu yu am solo Khadim Ndiaye yëkkati ko nag jëmale ko ci population sénégalaise rawatina fi mu fekk baax di waa Touba jàpp nanu ni lii mu indi dina jariñ ndaxte ku nekk di ko topp weel digle yi su ko defee ñu jàmmaarloo ak coronavirus mu jóge fi benn yoon askan wi mën a dem continuer seen liggéey comme ni nga ko doon amalee.